barke Serigne Mama li na ko maare li na ko maare a jangol ay ka ma jangol bilay na yalla man xale li bëggee ambiance. lu xew lu xew lii du bëre lii du lamba dañu tëggal lamba ah ngi wax laaj na ay sixième arbitre baa ngi wax na ki nga xamante ne ni mooy Thiatou Rebeuss arbitre bi sifflé na Thiatou Rebeuss Siteu bu 6 mars il est 20 h yaa ngi ci digg géew bi Thiatou Rebeuss a ngi doxee wet andiwaat na ko ci digg géew bi <coughs> Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu bu na suul li waatoo bi sori waaye mbokk yi dinañ jege yaantoo yàgg yàgg yàgg yàgg dinañ laale Siteu bu Ngor Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor à droite arbitre bàyyi leen dinañu bëree bëree mënut a ñàkk Siteu bu Ngor suul na ay tànkam Thiatou Rebeuss cokkaas na ko léegi waaye dafa sori da koo bëgg a jàpp da koo bëgg a jàpp Thiatou Rebeuss jàpp na ko Siteu bu Ngor Thiatou Rebeuss sañaxal na ko Siteu door na Siteu bu Ngor fàq na Caatu Rebeuss xale yaa ngay bëree Caatu Rebeuss bu jàpp ne yaa ko dàq daan da daan wala lu mu koy def Caatu Rebeuss Siteu bu waa lii lan la waa lii lan lii lan Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu nu muy def lii Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor ñoo ngay bëree Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Caatu Rebeuss Siteu Siteu bu Ngor Caatu Rebeuss waa eh eh laay waa lii lu mu doon Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu bëggul mu ko Siteu Caatu Rebeuss Siteu Caatu Rebeuss Siteu door na léegi Siteu door na léegi Siteu ko waa lii lan la baatu ko doomu daanu caatu robas mi caatu robas si tamu ko da ko doomu daanu waaw kenn xamul li lan la làmba ngi noonu ma supporter ya caatu robas takkaat na ko caatu robas si tamu ngor caatu robas si fàq na ko da daan daanu na fàq na ko mu daanu fàq na ko mu daanu làmba ngi noonu làmba waa di sant ñëpp di sant ñëpp yow di santaat di santaat ñi maire toog ak ñi xamante ne su suba ba léegi ñoo ngi su waañ bi quoi ñi xamante ne su suba ba léegi ñoo ngi su waañ bi maa leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant ñi ma ñaanal ñëpp di sant ñi ma ñaanal ñëpp eh, di sant saa Touba di sant Sirif Waluna maa ngay sant bu baax a baax eh, di sant sëñ Matar mbaake maa koy sant bu baax a baax a baax ñaanal na ma si combat bu baax maa ngi sant àdduna di sant ñëpp di sant saa Touba maa ngi sant ñëpp ñëpp aw ma seen fay eh, di sant xale yu bi maa ngi di santaat bu baax a baax di wax ne kontaan naa si ñoom kontaan naa si ñëpp kontaan naa si Ngor Yoff Waxaam ñëpp yee di kontaan si may sami toog nii kii saa yu ma amee combat lépp jóge ba jaamu gën xam nga mooy loolu maa ngi koy sant bu baax a baax a baax may sa seeraas borom dawali yee fu man ta jóge tey ñëw si bis bi rek sant naa la muy ñuy jóge Pikine ak ñuy jóge Touba ñuy jóge Louga ñëpp sant naa leen bu baax a baax a baax ñuy jóge Gambie ñëpp ñoom Gambien ñëpp sant naa leen yee fu man ta jóge rek sant naa la mënuñu lim ñëpp quoi mais ku limul rek ñooñu jégalu ñu xam ne xam nga rek xelal mooy xelal fatu quoi di sant sëñ Maam Mor Céemaan sëñ Maam Mor Céemaan maa ngi sant bu baax a baax ñaanal na ma si combat bu baax a baax a baax a baax di wax na Caatu Rebeuss waaw lamba moo ngi si kanamam lamba moo ngi si kanamam quoi comprendre nga lamba moo ngi si kanamam na gën a góor góor du gën a liggéey ànd ay mbokaam liggéeyaat di sant monsieur le maire ati jàpp na si combat bi quoi Adi maa koy sant bu baax a baax di sant tamit suñu maire bi fi ne Mama Gueye laay yee eh, jàpp na si maa ngi sant bu baax a baax di sant ngor ñëpp yee eh, la eh, di santaat maire yi toog ñii ñëpp di leen santaat du ma doyal si sant bi quoi. yow di jégalu boo yëpp di jégaluwaat tamit koñ bi yëpp si dérangement yi di jégalu dëkkandoo yëpp si dérangement bi ñëpp ñëpp maa ngi leen di jégalu bu baax a baax yee maa ngi jégalu ñëpp yee di lancer benn message rek yee mooy si état quoi. mooy booy xamante ne caabi da leen féetee ginnaaw ñu ngi koy ñaan mu jéem si jàpp rek et mu jéem leen libéré quoi naata duñ ay tooñkat quoi ay xale lañ di liggéey xam nga di daan seen doole kon lu bare mun leen di raw quoi ñuy ñaan état mu jéem leen a libéré rek ñu tamit ñu koy dékkaat suñuy loxo Macky Sall la di ko ñaanaat mu jéem ñu jàppale si si piste bi lii xam te ne jeune Ngor ñu ngi koy xeex ñu ngi koy dékkaat suñuy loxo di ko gën a ñaanaat. mu bàyyi si xel quoi.